allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim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 inna ilayna iyaabahum thumma inna alayna hisaabahum allahu akbar allahu akbar sami'a allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd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 asalaamualeykum. asalaamualeykum. منوايد صمد هادي المجيد al maxduraat tubihul maanaam addaruuraat tubihul maxduraat maanaam lépp loo xam ne lislaam tere la na ko boo demee ba nga xam ne amatoo benn pexe bu looloo fa sës loola lislaam dana ko may waaye ndegam dafay sës rek kon yaakaar naa def li nga xam ne mooy li li li nga xam ne doonul lu fa sës mooy li gën waaye bu ñu wóoree ne kon jàkka ji fees na dell kon bu boobaa danañ sañ a ci bitti danañ sañ a jullee ci kanam itam ndax lo ndax loola tax ñu di ko def waaye bu dul loolu nañ gën di góor góorlu ba nga xam ne bu doonte dafay dañuy dem dañuy dem ci saal yi nga xam ne moo nekk ci biti moo te te fexe ba stade yooyu itam sàppe yi jàkk jokkaloo ndax jullikat lii tax mu mat faw sàppe yi day jokkaloo du ne fu la neex rek nga ñëw taxaw du ne fu lu la neex itam nga defe ko kon nañ góorgóorlu ba leen nga xam ne sàppe yi danañ ko danañ ko taqale danañ lu ba nga xam ne itam bala ñoo toog ci biti ci ci kanam ci kanam bunt bi wala ñuy toog ci biir jàkk wala ñuy nekk ci biir saal ba nañu wóor ne booba biir gi fees na ba amatuñ pexe moo xam ne moo tax moom lañ mën a def ñu góorgóorlu ci loolu ndax loolu moo ñuy dimbale mooy tax itam li ñu tax a jóg ñu am ko ci amin wu rafet yal nañu suñu borom moom mi nga xam ne nag mooy borom kattan te mooy borom man te mooy borom yëggal te mooy ki nga xam ne itam xam ne doyat yi nga xam ne moo nekk ci doomu aadama yal nañu dimbaleel boppam ba lépp loo xam ne def nañ ko ak nu mën a demee rek mu baaxalal nu ko moom ci boppam nañu ko baaxalal ba mu ñëwee nu kawee suñ jot su fay nu itam lu kawee suñ jot loolu suñ borom mën na ko jàpp nag yal nañ ko defal والقلم وما يسطرون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu këru liggéeyukaay gi di C3S compagnie Serigne Seck Sénégal moo ñëwaat ak yéen ci jongante mbindum alxuraan bi muy amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di dëppook ñetteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind xët ci alxuraan bind sa tur ak sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci barabu C3S bi la gën a jege wala nga yóbbu ko ci fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi am na fa li bees ci ren bi mooy jigéen ñi dañu leen di beral seen concours bopp ak jongante bi ñuy amal ci région de Matam ngir doore fa jongante bi ñu namm amal ci gox yi at yi di ñëw ñett ñi jiitu ci concours national bi danañu am ay neexal yu ñu leen jagleel premier bi million millions deuxième bi cinq millions cinq cent troisième bi cinq millions bu dee ci jigéen ñi première bi million cinq cent deuxième bi un million troisième bi cinq cent mille francs bu dee concours bay am ci région de Matam premier bi cent mille francs deuxième bi trois cent mille francs troisième bi deux mille francs terewul nag ku bokk ci tànn bu njëkk ba di nga am ay neexal yu ñu la jagleel dépôt candidature bi dina door janvier war a jeex 31 janvier 2020 ku ci bëgg yeneen di leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بنعمة ربك بمجنون